ci Kaolack ci Medina Baye nekk tête de liste bu coalition Farlu nga xamante ne Mouhamadou Moustapha Diop bu Louga nekkoon ministre nekk maire de Louga moo ko jiite tey jii ma nekk tête de liste fii ci Kaolack di nuyu ñëpp di ziare ñëpp di ziare suñu xalifa général Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass xaadimul umma di nuyu ay imam yi surtout Cheikh Tidiane Aliou Cissé ak rakkam Mouhamadul Mahi ak seen mag Mouhamad Cissé ak bépp imam bu nekk Medina ak bu nekk ci Kaolack bu nekk senegal ak xolofa xolofaa ñëpp maa ngi leen di ziare di leen nuyu di wax ne coalition bi tey ma bokk li ma ci boole ak lu tax ma dugg ci bëgg senegal tase ku bëgg senegal ñu ànd man maa ngi bokkoon ci liste bi numéro 19 moom Moustapha mi mu nekk numéro 20 yàlla def bi nga xamante ne mooy boole nit ñi te booloo nañu démb ci Ezel dugal ci moom xel wanne ne nekk ci rang bi te jiitu la nekk 19 war naa war ngeen mën a ànd moo am ku mu yebal ci man. mu wax man ma ne ko d'accord naa pour ñu toog ah bañ toogee yàlla defal ma sutura itam defal sutura gi mooy lan waaw ah, defal defal sutura gi mooy lan point yi ñu waroon a convergence yi ñu war yi ñu waroon a uute yëpp yàlla defal ñu sutura ñu d'accord ci comme lu mel liste nationale moom waroon a nekk war a nekk tête bi jigéen topp ci man war a ñëw troisième ma ne ko man soxlawuma liste national xanaa ñi ma àndal ñu investir leen Kaolack laa dëkk bàyyi ma affronter département bi bi may wax loolu itam dama ko wax ci bëgg gu ma bëgg Kaolack ak situation yi Kaolack yi dund nga xamante ne depuis l'indépendance ba léegi Kaolack mës sa toll ci biir situation ñuy tabax Sénégal bokku ci dara du ministre du dara loolu mës a am Kaolack bi ñu amee indépendance ba léegi li fi nekk ci jaar ci ay premier ministre li fi jaar ci ay ministre des finance li fi jaar ci ministère de l'intérieur li fi jaar ci ay yeneen mi ah, ministère de clé yoo xamante ne euh, euh, euh, Kaolack lañ dëkk kenn xamul nu mu toll suñ demee nag bay defar Sénégal ëllëg Sénégal pétrole ak gaz ñi ommi Kaolack mooy ne yaa quelque chose moo tax loolu bokk na ci li ma fiirloo bokk na ci li ma jël joxloo engagement ma tase ko am engagement mooy euh, Moustapha mu nekk nit koo xamante ne nit ku yiw nit ku baax nit ku yaatu nit ku gëm boppam nit ku euh, ku ku am bëgg-bëgg euh, wax dëgg bi ñu waxtaanee mat waxtaan bi sax yàggu 30 mille ñu jubóo moo tax may wax waa Kaolack ne leen maa ngi leen di invité ci farlu muy coalition bii nga xamante ne ke yéen ñëpp xam ngeen baata farlu muy firu farlu farlu ba tabax sama tabax kër farlu ba samp kër farlu ba ba liggéey farlu ba def def sa devoir laaj sa xàq foofu lañ toll Sénégal foofu la toll dañoo war a la laaj seen xàq amatuñ droit di seetaan jigéen ñi seen coono bi muy continuer amatuñ ci droit war nañu fexe ba jàppandal leen sa ay dundin ñi ci soxla liggéey ñi ubbi leen ay ay ay ay pere yoo xamante ne dafay jàppandi te itam du leen lor euh, xale yi nga xamante ne dañuy jàng te éducation bi manqué ñu fexe ba dugal ci éducation islamique loolu ci lay jaar wax ne bëgg naa ñu officialiser langue arabe su ma yàlla yóbboo ci assemblée bi langue arabe moo fi njëkk moo fi njëkk euh, français français dañoo coloniser woon ba demee bàyyi ñu langue bi arabe bi nag ku ko xeeb mooy ne da eh, su fekkee jullit nga mooy da nga xamul lan arab bi arab bi mooy langue aljanna mooy langue yonent bi sallallahu alayhi mi nga xam ne ñëpp ko bëgg ci senegal mooy langue boo xam moo fi jiitu mooy langue boo xamante ne bépp jullit boo xamante ne yaa ngi ci biir senegal jël nga sa doom yóbbu ko ci daara mu jàng ba fer ij bon illettré amul ci Sénégal fekkente ne mën a bind rek ak ak ak ak mën a wax loola loolooy lool loolo looloy euh, dindi nit ci illettré mën a liir mën a bind Sénégal amul université xanaa euh, illettré xanaa ci francais xañ na français ñëpp jànguñ ko waaye arab bi moom wala alxuraan ji moom ñëpp jàngu nañ ko ñëpp fer nañu iji ñëpp xam nañ bi arab yi ñu ngi ci bindi seen i lettre di ci def lu ne bon di commerce sax am na commerçant yoo xamante ne ci ci ci ah, ci ci kii bi la ñuy euh, lettre arabe bi ci la ñuy bindee seen soxla ci defee lu ne boobu laa nga waruñ ko négliger war nañ koo teg place am yëkkati ko parce que suñ ko yëkkati suñu bopp lu ñu yëkkati ni ñu mën a yëkkati langue jàmbur même su fekkee mooy suñu langue officielle itam war nañ ko mën a yëngal langue bi nga xam ne moo amee suñu diine ji suñu mag ñëpp nekkoon ci muy langue yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te moom lañ sopp kooku bokk na ci danaa aussi ñi nga xamante ne comme ñun Saalum dañuy bay baykat yi ma fexe ba ñu am seen suuf seen suuf yi ñu am permis euh, euh, de nu ñu koy waxee di de exploitation nga xam se ne kenn suuf yi lu nit bëri bëri dool doo ko mën a nangu lu commerçant bëri bëri xaalis du ko mën a jënd ci ñoom du ko mën a nangu ci seen loxo fexe jàppandal itam lu fexe ba automatiser wala boog ba industrialiser mbay mi nga xamante ne ay machine ay yooyu pourquoi pas mën nañoo installer usines yi fii ñu ñuy defar machines yi di ko di ko di ko yàppanal nit ñi mën nañoo dem bay di ko jaay ci sous région bi pourquoi loolu yëpp mën na nekk te loolu yëpp ci assemblée bi lañ koy lañ koy kaase moo tax may wax ne nañ fal député boo xamante ne comme député farlu bi di Cheikh Ibrahima Diallo ma ne euh, su ngeen ko euh, bii mooy exercice bi nga xamante ne moom la war a dugal Moustapha moo nekk ci kaw nii photoom am pitax moo xamante ne mi ngi naaw euh, tiim réew mi fas yéene fu fu nekk ci réew mu yóbbu fa jàmm loolu loolu loolu lay firi ah, weex bi nag xam ngeen weex mooy lu muy firi weex mooy jàmm képp koo xamante ne wa ah, sol na mbubb mu weex wala mu yëkkati dara boobu weex mooy ne jàmm la bëgg ba nag te réew mi soxla na jàmm fi mu nii fitna yi bëri nañ ñu koy yëngal itam bëri nañ te moo tax ku wateel farlu yii ma tudd nii yëpp danañ ci àgg ah ñu ñaa ngi sàcc kii nit ñi alali nit ñi surtout ci àll bi di sàcc eh, vol de bétail a ngi fi ñu ngi leen di sàcc ñii di rey ay nit loolu yëpp war nañoo criminaliser ku rey nit te tey ko ñu rey la parce que loolu moo maandu loolu lislaam santaane te li tax mu santaane ko fekk defuñ ko réew mi doomu am équilibre yéen xam ngeen ne nit ki dafa foor ci yàlla parce que li tax mu foor ci moom daf ko bind ci bind yoon yonent bi yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yàlla dafa fonk yonent bi ba nga xamante ne lu mooy eh, buur la lu mooy yàlla la tagg wu la neex nga tagg ko yonent bi ndax fonk nga fonk bon donc adama jooju war nañoo fexe ba defal ko sécurité fexe aussi mu am eh, eh, souveraineté boo xamante ne dina mën a mucc ci xiif dana mën a mucc ci feebar te loolu yi mën na nekk dafa ay hôpitaux yoo xamante ne cinq kii lay doon nga xam ne dootuñ jëggaani hôpital dootuñ jël suñ nit ñi di leen yóbbu à l'étranger pour ñuy faju ji yooyu yëpp ñu ngi ko prévoir du dara lu may ay loi yoo xamante ne ci assemblée bi lañ koy lañ koy watee fa lañ koy defee Sénégal pétrole lañ jëm nag ak gaz te kawlax warta des gannaaw moo tax soo dugalee laajoon nañu présidentielle ñu jox leen présidentielle ah ñu ommi suñ leen joxaatee député gi euh, majorité mbaa du ñu mbaa du ñu gën a ommi mbaa du ñu def poubelle sànni ñu jigée bi fonk ñi pour ñu pour ñu pour ñu dëkk nu nuy si suñu sëriñ si sax il a fallu que euh, euh, ay commerçant jàpp ci il a ay partisan bind ay lettre rek yooyu yëpp pour wane ko da ñu yàqal suñu élection soo ko dee soo see nu jur sëriñ si mu door force boppam ñëw bon ñun dañoo nekk ci période boo xamante ne ku ñu fonk ñu fonk la ku ñu fonkul nag yow yaa xam li tax fonk ñu waaye ñun doomu bu ne teg nañ la fa war a teg respecté nañ la fonk nañ la ah di wax nag ne réew mii réewum démocratie la li ma gisa gisagum nag ci élection yi wax dëgg ba fi ñu agsi nii doy nañu parce que gisagum nga dara loo xam ne lu wane ne transparence amul ba mu des nag ñu àgg ca ca ji loolu su jàllee ci lay door a mën a joxe définition totale bi nga xamante ne gis naa ko waaye li passé gum daal zéro faute bañ nañ ko ba préfet bi aw préfet yi ay plateforme lañ def di wax ak plénipotentiaires yi ku ci am problème solliciter leen ñu réglé ko li ci des nag population Kaolack laay dellu si di wax ak ñoom ku la fonk fonk ko ah ñun nag ci réew mi am ku ëpp Baye Niass te liñ gis ñun mooy dañoo bëgg a bedd beddi beddi bi mooy lan bëgg ñoo def euh, euh, dugal euh, nuñ ko nuñ ko nuñ ko mën a waxee def ñu def ñu gan goo xamante ne soo ñëwee dañuy wax kër gi fii kat ama place bi lañ def fi dencal ab néeg la wala aw ruq la ab pantere nga dugg ñun xajuñ ci pantere ñun ci njëndi lañ njëndi lañ xaj ba na ku ñu bëgg a dugal ci pantere yi war nañoo bañ waa Kaolack takku leen ngeen xam seen bopp bu génn ci ñàkk fayda gi ñu leen di tooñee mooy ñàkk saalum saalum amul fayda loo wax mu ne dara jaru ko te fekk jar ko ku la suufeel war a ko nangu te lii ma gis mooy dañoo bëgg a suufeel suñu bëggoon a yëkkati suñu doom yi nga xam dañoo àndal ak ñoom di sonn ñu def leen dara amul kenn ci suñu doom yi koo xamante ne ah, ah, ah, jege nga jege nga soo demee sax xamuñ la wala teguñ la fen bon bu leen réccu ñaari yoon ñii man li may ragal mooy suñ leen joxee majorité ñaari yëfa ci mën a am suñ jubalee ah alhamdulilah rabbil alamina économie suñ économiquement suñ jubalee yëf yi dana baax trop mais suñ juumee ku leen di du jumar ci su ah, ah, kan lay doon su ñaamee majorité totale ku leen ku leen ku leen di jubanti du ma dootuma nekk juróomi at dafa bëri suñ juumee suñ diplomatique eh, mu am yàqu-yàqu kan moo leen di eh, dingar ci wala kan moo leen jubbanti amut bon nañ góor góorgóorlu ba équilibre am ci assemblée bi su ñu leen joxee majorité total ba ñu ma le comme ñoo nekk régime en place ñu am majorité mais nag majorité boo xam ne ëllëg si bi dafay gaañ peuple bi boobu majorité euh, wax dëgg ma nañ ko daw di wax arabisants yi waxuma nañ dugg ci benn parti nañ dugg ci parti yëpp nañ fexe ba am fa au moins vingt yoo xam ne arabisants lañ loi yi ñu may wax nii sànq su boobaa danañ mën a ànd joxe seen loxo pour def ko arabisant bi nga xamante ne moom li mu gëm mooy ab parti gëmul réew mi taxut mooy wax arabisant bi nga xamante ne gëm na partem waaye réew mi la jiital ci loolu bu ñu bu bu bu li li Benno Bokk Yaakaar def euh, euh, defoon ñii en place ba ñu tas assemblée bu ñu dugg ci loolu nañ jël jiital réew mi nañ jiital inter réew mi que seen intérêt parti yi wala ak seen intérêt personnel yi araab dafa laaj ñu sukkandiku maa ngi ci interpellé sëriñ si di ci interpellé euh, école coranique yi di ci interpellé ñëpp man Ibrahima Diallo de su ma taxaw ci assemblée bi lépp loo xamante ne suñu xàq la dinaa taxaw dinaa ko kaas te te du je ne serai pas seul parce que dañoo exclure dañoo boddu dañoo nu ñu koy wax di depuis l'indépendance ba léegi ci antichambre bi la ñuy dugal te dañoo war a génn ci antichambre bi ñaari doomi Sénégal amul. ci jàng arab ak français déedéet benn doom la benn ndey leen jur Sénégal leen jur mooy seen ndey mooy seen baay ba nag war dañ leen a war a yemele dañ leen a war a euh, def ni toppatoo gi ñu topp euh, ñu nekk ci école français bi noonu la ñu war a toppatoo li ci des li li lenn li tooñ la tooñ bu dem ba passé juróom benn fukki at dafa war a arrêté man Ibrahima Diallo mi su ma watelee loolu dana arrêté moo tax maa ngi laaj arabisant yeeg ñi gëm l'islam ak ñëpp nañ wateel farlu suñ ko defee duñ ko rëccu maa ngi nuy ñëpp di sant ñëpp di leen sant yéen journalistes yi di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla defal tawfiq defal ñu jàmm ci réew mi farlu gañe kawlax gañe partout aussi yàlla mën na ko yàlla ñu ko yàlla defal asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu.